dafa am loo xam ne nii bitt la fanaanoon moom mooy lan ñun xamoon nañ ne rëg-rëg mi nga xam ne ni moom moo jiitu bu sikke cop ci lii rëg-rëg da koy gañe ku gañee ay ñoom bu chacha ku gañee pas mal des combattants yoo xam ne nii ah war a dem xeex ji ceinture war a dem daje ki nga xam ne nii moom mooy Boucher Ketchup te Boucher Ketchup musul def kickboxing Boucher Ketchup làmb Sénégal sax Boucher day ñamantu pour waxal leen dëgg rek maanaam gis nga Sénégal yi indiwaat leen seen xol yi te baax bañ a iñaan bañ a bu fekkee ne xaalis bi boucher di jot foofu moo leen di métti ba toujours yéen a ngi xool safaanu boucher boobu da ngeen yàgg ndax nag bu leen fàtte booy bii naa leen ko waxaat de yéen ñëpp yéen ngi taxaw non boucher lii boucher lii mais boucher ci ni mu mel nii ci la boucher amee kër ci ni mu mel nii barki démb ci la tijjee restaurant ci mel nii ci la ko ndayam ak baayam ak rakkam yi kii magam yi bëggee kon gaa yi indiwaat leen seen xel tuuti léegi bu ñëwee ci combat bi combat wu boucher ban combattant nga mas a gis mu dox ci kaw Reug Reug dañu waxante dëgg ci ci kickboxing pour am ne la Boucher ñàkk a def kickboxing tax na comprendre sax li Reug Reug mën ak li Reug Reug mënul moom lépp lu gisoon mooy gaynde la day dem songu Reug Reug jaxase Reug Reug loolu la Boucher wax naa laati Boucher loolu la wax Boucher moom dane ak nu mu fa mën a demee Reug Reug moom dana ñam xaw ma nag nu mu fay demee waaye man danaa ko attaqué dinaa ko teg pression loolu la Boucher wax na loolu lay def Boucher ñëw na def loolu mais yéen yéen a xool Boucher mi ñu dóor mu daanu mais c'est normal Reug Reug du n'importe kii dama koy waxaat saa su ne sénégalais moo mën a xeeb doomam Reug Reug fii la doon xeex MMA kuñ ko booleel ñu ne ah Reug dana rey Reug Reug kuñ ko booleel ñu ne ah dana rey Reug Reug Reug Reug du dama koy waxaat te bu ngeen xoolee Reug ak Boucher Reug Reug il a suivi les règles de l'art Reug Reug dafa suivre les règles de l'art mais bu ngeen xoolee Boucher Ketchup moo song moo dóor moo kor yooyu yëpp mais Boucher fan la jàngee loolu nañu xam ne dëgg on parle dans un ring de kickboxing Boucher musul jàng xamut xamut luy kickboxing mais yéen ngeen jël vidéo yi Reug Reug mais Reug Reug gagné sax Boucher du ndam pour ma wax leen ko ci Reug Reug mais sénégalais yi ñu ngi xool lu ñuy descendre ñeneen ñi tellement à un point ba Boucher Ketchup yéen bu ngeen ko publier Reug Reug gagné ko lu mu koy wàññi wàññiwu ko dara. Boucher man a la ko wax demal nga lekk sa xaalis fi nga ko war a lekkee gars yi xol bu bon ak xol bu tàng moo leen di waxloo moo leen di daggloo yu vidéo moo leen di yónneloo yu vidéo loolu kese la du leneen te koo ci dem na xaaj bi yëpp seen kër dañuy am problème mu dépense ah. pour wax la dundal li ngay dund dafa am loo xam ne du chance mérite la Boucher lii da nga koo mérité rëg-rëg merci beaucoup rëg merci beaucoup rëg-rëg rëg professionnel gi nag feeñ rëg ñëw na ci biir géew bi def comme un grand professionnel ah maanaam respecté adversaire am déglu adversaire am lu mu indi Reug Reug déglu na Boucher indi ci la xam ne ne ah combat bi warul yàgg normalement ndax coup perdu fépp la mën a génn kon Reug Reug dafa waroon a aj gardam protéger boppam déplacé wu xool li Boucher euh, indi après Reug Reug contredire li Boucher teg loolu kese la kon gars yi lii laay war a suul yi bàyyi leen Boucher Ketchup mi ngeen di xool lu ñuy descendre ñeneen ñi tellement à un point ba Boucher Ketchup yéen bu ngeen ko publier rëg-rëg ko lu mu koy wàññi wàññiwu ko dara Boucher man maa la ko wax demal nga lekk sa xaalis fi ñu ko war a lekkee gars yi xol bu bon ak xol bu tàng moo leen wax waxloo moo leen di daggaloo yu vidéo moo leen di yónneloo yu vidéo loolu kese la du leneen te koo ci dem na xaaj bi yëpp seen kër dañu am problème mu dépense ah pour wax la dundal li ngay dund dafa am loo xam ne du chance mérite la Boucher lii da mérité rëg-rëg beaucoup rëg-rëg beaucoup rëg Reug Reug professionnel gi nag feeñ Reug ñëw na ci biir géew bi def ko ma grand professionnel ah maanaam respecté adversaire am déglu adversaire am lu indi Reug Reug déglu ne Boucher lu indi ci la xam ne ne ah combat bi warul yàgg normalement ndax coup perdu fépp la mën a génn kon Reug Reug dafa waroon a aj gardam protéger boppam déplacé wu xool li Boucher euh, indi après Reug Reug contredire li Boucher teg loolu kese la kon gars lii war a suuli yi bàyyi leen Boucher Ketchup mi ngeen di tans nii bu doon làmb Sénégal sax waa mais contre Reug Reug ñëpp xamoon nañ ne Reug moom moo ciy professionnel Reug moo nekk ci mbir mi yàgg ci mbir mi Boucher dafa xëy mu am mérite ñu ne ko kaay xeex tout simplement mérite am nag da koo liggéey ba am ko nañ waxante dëgg rek nee naa leen bàyyi da ngeen taxaw di soxor te ki ngeen di soxoree mi ngi dem di leen fi bax du am seen temps des fois ki ngeen di soxoree sax moo leen di wax loo ay waxi dof ngeen nekk foofu di tardé moom muy continuer focus ci lu mu focus di dem te Boucher mi ngi def loolu Boucher continuer yàlla la yàlla defal jàmm rëg-rëg merci beaucoup félicitations ñaari doomu Sénégal yi doon xeex mais tere wut te rëg xooleen rëg-rëg xel bu mu am néew fa sax di wax naan xaaral ma humilier ko booy kii sénégalais fi ngay xamee ne rëg-rëg nit la fii ngay xamee ne rëg nit la fii tamit ngay xamee ne Boucher kay Boucher ki cop gaynde la ndax lu mu bon bon nee na même bu dee rëg-rëg sax je m'en sama ngor lay demee na ma rey waaye danaa raat loolu yëfi góor la loolu patriotisme la loolu yëfi góor la kon damay waxaat rek macha allah macha allah neexoon na man de wax dëgg yàlla ah bu si ko cëb zéro foot ndax nag jàppal ne defoo kickboxing li nga deful kickboxing nag c'est normal day feeñ am na yoo xam ne dóor yoo xam ne boo dooree sa gaar day tijjeeku mais xoolal rek rek même lu sa garde tijjeeku moom mi ngi sóor dóor bi ko war a dóor pour waxal ne le professionnalisme maanaam ñoom duñ xeebaate professionnel boo ko doonee doo xeeb sa adversaire ah moo tax macha allah sama gars yi am leen jàmm bu baax ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen di leen ziar di leen jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen wax ne leen applaudir leen Boucher Ketchup ndax na ku dox ci kaw Reug Reug moom <laughs> maa ngi jégalu quoi Boucher lu muy xalaat ndege ah Boucher amul lu muy xalaat quoi bu ñu waxee dëgg rek waaw. ku ñemewul nag du def ku nangu combat ba ñëw tëj ñu tëj la ci ring tëj ne la rap loolu la Boucher def ba pare jàkkaarloog rëg-rëg xam rëg-rëg ci débat dépp xam rëg-rëg ci làmb ba pare gis rëg-rëg ci MMA mu war a dem xeex ci ceinture Boucher ñëw ne day xeex ak moom moo tax ma ne foofu di tardé moom mu continuer focus ci lu mu focus di dem te Boucher mi ngi def lool Boucher continuer yàlla la yàlla defal jàmm rëg-rëg merci beaucoup félicitations ñaari doomu Sénégal yi doon xeex tey Reug Reug xooleen Reug Reug xel bu mu am néew fa sax di wax naan xaar ma humilier ko boo kii sénégalais fi ngay xamee ne Reug Reug nit la fii ngay xamee ne Reug Reug la fii tamit ngay xamee ne bu sa kay bu sa coob gaynde la ndax lu mu bon bon nee na même bu dee Reug sax je m'en fous sama ngor laay demee na ma rey waaye danaa raat loolu yëfi góor la loolu patriotisme la loolu yëfi góor la kon damay waxaat rek macha allah macha allah neexoon na man de wax dëgg yàlla ah bu si ko cëb zéro foot ndax nag jàppale defoo kickboxing li nga defut kickboxing nag c'est normal day feeñ am na yoo xam ne dóor yoo xam ne boo dóoree sa garde day tijjeeku mais xoola rek rek même lu sa garde tijjeeku moom mi ngi sóor dóor bi nga ko war a dóor pour waxal ne la professionnalisme maanaam ñoom duñ xeebaate professionnel boo ko dooree doo xeeb sa adversaire ah moo tax macha allah sama gars yi am leen jàmm bu baax ñu ngi leen sant di di leen di leen ziar di leen jox sa wàccuwaay bu a baax a baax di wax ne leen. applaudir leen Boucher Ketchup ndax na ku dox ci kaw Reug Reug moom <laughs> maa ngi ko quoi Boucher amul lu muy xalaat ndeket ah Boucher amul lu muy xalaat quoi bu ñu waxante dëgg rek waaw ku ñemewul nag du def ku nangu combat ba ñëw tëj ñu tëj la ci ring tëj ne la rap loolu la Boucher def ba pare jàkkaarloog Reug xam Reug Reug ci débat dépp xam Reug Reug ci làmb ba pare gis Reug Reug ci MMA mu war a dem xeex ci ceinture Boucher ñëw ne day xeex ak moom. moo tax ma ne la ku ñemewul du def ku ñemewul du def dama leen koy waxaat xaw ma lan waaye boucher ragalu dee ndax ndax boucher boucher bi jël nga combat bi waaye boucher bi xanaa day fo mais boucher tu as du mérite mon frère wallahi wal sa xoola boucher bul déglu nit ñi gars yi soxor rek nee naa la gars yi soxor dañuy xëy dem problème mu dépense yow da nga xëy tabaska kër sa nday kontaan sa baay kontaan ngay nga fi ànd ak ay artistes yoo xam ne ni da leer na la su waaj dañ lay fay la force xam nga yow kon continuer ci li nga nekk ah time is kon dama lekk nday say quarante ak say cinquante millions doom nday yéene nañ la ko yàlla na rees waaw boo amaatee nag beneen combat nga dem fekk rëg-rëg mu jàppale la exactement won nga ñëw fii Canada ñu jàppale la yow xamante nañ affaire yi jafewul am leen jàmm sama gars yaa jëf